asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taaliba yi ñoo ngi leen di ziyaare bu baax di leen balu xàq ci weer wi ñu nekk te di leen balaq eh, di sant yàlla bu baax ci tawféex jim ñu defal di fas yéene rek yëkkati ay kàddu yu gàtt yoo xam ni ab taxaw seetlu la ci tolluwaayu jamono ji ak xew-xew yi nga xam ni ñoo ngi koy seetlu li ci jiitu nag te yitteel nu rek mooy mbiri borom Tuuba ndax ndigal li nga xam ne moom la amee woon ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu yar ak njabootam ci yitte te bañ leen a yar ci jàng rek yitte jooju nag mooy ximma Euh, nekkoon na loo xam ni fekk na daara yi fi amoon booba jàng rek moo amoon moo moo nekkoon gànjar gi nga xam ne moom la ñëpp doon wër mooy jàng am alquran ak jàng xam-xam ci yenn téere yi boo noppee nag euh, yaa moom sa bopp waaye nag sëriñ bi moom yonent bi moo ko jox ndigal ci mu yar ndigal loolu nag bokk na ci taalibe yi daan liggéey lu bari di jaamu yàlla lu bari di tudd yàlla lu bari néew lool ay wax néew lool ay nelaw néew lool ak jaxasoo néew lool li ñuy jëfandikoo amun woon it ak jot ci dara lu dul lii nga xam ne ci lañu nekkoon ba sunu borom bi subhaanahu wa gërëm leen gërëm na sëriñ bi gërëm ab liggéeyam sëriñ bi itam gërëm na ñu bari ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di liggéey ngërëmaande loo xam ne dul dara lu dul jottali leen ngërëmul yàlla ak bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag biñ ko noppee gis doom yim fi bàyyi àndoon ak taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon ak borom Touba ak seeni doom yoon woow rek ci lañu ñu teg woon mooy yoonu tërbiya ñu nekk ci liggéey bi awale foofa njaboot gi itam ba gis ngeen lu bari ci résultat yi mu jur ak jeexit yi mu am waaye doon doomi murit taxuta doon murit dëkk Tuubaa taxuta doon murit ndax doomi borom Tuubaa yi biñ jàppee ni ay murit lañu te defaguñu li ñuy wax jaayante ak borom Tuubaa moo leen xamal ne jaayante yi taxa doon murit ñu jébbalu ci moom di ko liggéeyal di sàkku ngërëmam ba am ko ni ko taalibe yépp doon sàkkoo ba am ko sunu boroom nag mi dara tëwul moo leen defal tawféex ju tol ni ñu doon ay doomi boroom Touba jiite njaboot gi ba tey sët yi jiitu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha jiitu ci nekk ci bopp ba waaye li tax ñu yëkkati sunu kàddu mooy dañu seetlu itam ni li ñuy wax ay wahabi yi ñenn ñi di wax ne ñenn ñi ay salafiste lañu tey jii yaakaar naa ñi ci ëpp walla ñi ci gën a dëgër pas-pas ci loolu boo xoolee Touba lañu dëkk walla ci njaboot gi lañu bokk ndax bu ñuy wax oustaz Ahmad Lo moom seen Cheikh Gaynde Fatma moo ko jox bourse sumu jàngi bitim réew loolu moo ko wax te tey jii gis nañu taxawaayam ak ay bindam jëme ko ci mu tasawif yépp waaye taxawaayu ñu bari ci ñoo xam ne tey waroon nañoo mel neneen nu lii euh, sëñ xaadim njaay Rachid jaar na ci ak ñeneen ñoo xam ne tey jii boole du duma sax ni ay doomi taalibe rekk lañu waaye ay doomi cheikh lañu ak i sëti cheikh yoo xam ne seeni maam ñoo àndoon ak borom Touba kon ñoom lañu war a jàng ci diine yépp jàng nañu ko waaye ku fi jóge dem Arabie Saoudite ñaari at dellu si yoonu murit ñàkk la wala boog yaakaar jañ amoon na ci yoonu murit ngay bokk wala doon ca keno loola daldi màpp ma yaakaar nag ne kon jël gone jàngal ko alxuraan ci ñetti at mu mokkal ko bind ko nga jàngal ko tuuti ci majalis ñu may ko bourse mu dem bitim réew wala mu def fii formation ba am ay diplôme dem bitim réew jàngi ñëw yoonu murit ñàkk ko am na lu lu bokkul ci liggéey bi luñ ci dugal wala lu bokk ci liggéey bi luñ ci génnee ala kulli xaal nag ndax booy waxit dangay wax loo xam ne ku ko xool gis ko ku ko làmb daj ko ma jàpp nag ni tërbiya mel na ni sàgganee nañu ko bu baax ndax jàng rek ñëw nekk ci dëkk bi nekk fi nekk fi naa kenn dimbaliwu ma kenn jàppaliwu ma ba yàgg nga ëmb ak mergoo xam ni dana la jural nga mel ni ku taxaw ci xeex yoon wi wala waxee waxin woo xam ne dëppoowul ak lan doon séntu ci yow loolu lu nu war a saafara la saafara si nag mooy njàng mi moom mànkewul nit ñaa ngi jàng waaye itam liggéey nag ak dimbali ndaw ñi taxawu leen bala war ci ñoom ñu def ko boole ko ak di leen xamal borom Touba ak di leen xamal ab liggéeyam ak njàngaleem ba noppi fexe ba ñu nekk ci condition yoo xam ne ku ñëw bëgg leen a ger wala ku ñëw bëgg leen a yàq wala ku ñëw bëgg soppi seen pas-pas doo ci man dara ndax nag jamono ji ni muy doxee war nañoo xam ni ngànnaay li jëkk ci àddina fi mu toll nii ñu koy xeexee lislaam mooy alal mooy xaalis kon nag nanu góorgóorlu itam ba nun sunu kilifa yi aar seen njabootu bopp yi aar seeni taalube ci fexe ba économiquement ñu leen di organiser ak di leen ñaanal ak di leen jàppale surtout doomi sëriñ si ak doomi seex yi am na ci lool waru am na ci loo xam ne waruñu ko ñàkk itam ba di ko jégaani wala mu di leen sonal ba ñuy dugg ci lenn ci ay pas-pas yoo xam ne dëppoowul ak jàngale sëriñ bi loolu daal wax dëgg yàlla Touba ak yoonu murit war nañ ci def ak seetlu waxa bi bari nañu Touba am nañu aw fit ñeme nañu wax ju ñaaw jëme ko ci pas-pasu yoonu murit ak ci taalube sëriñ Touba yi loolu daal lu doy waar la ndax diine joo xam ne mi ngi aju ci xëy di diingat sa mbokki jullit di yàq seen pas-pas di leen wax lu bon di leen takfiir ba jant bi soo nga tëddi boo xëyee xëyaat ci te yonent bi bàyyi fi ay taalibe yoo xam ne li ñuy bari bari bari matuñu genn wàllu juróom-ñaari milliards yi fi ne tey ñaari milliards yi agguñ ci catholique yi ñaari milliards yu tege lañu yahudi yi fukki million ak juróom lañu ñi ci des doon mbooloo moo xam ne pas-pas yu bari da caa daje aj bi gën a rëy actuellement ci àddina indu yi ñoo koy aj te ñoom seen aj googu mi ngi léeg-léeg àgg ci téeméeri million ak ñaar fukk bi ci gën a rëy noonu la toll kon euh, nañu xam ni ñun rekk nekkuñu fi waaye nag lu nu am mu rëcc day du ndam du du du pëstéef du liggéey boroom Touba li mu fi bàyyi li ci gën a rëy mooy taalibe yi ñu fexe ba sàmm leen ba taqoo ak ñoom ba àggale leen ci yàlla ba defar seen pas-pas ak seen pëstéef ba ñu mën a gëm sëriñ tubaa ngëm goo xam duñ ko raxe dara duñ ko boole ak dara ak taalibe yi nekk ci sow yi ci teeru yi tey jii yoonu murit dafa mel ni manqué na ay taxawaay ci teeru yi du programme yi du ñëw di woote ay conférence wala ay journée culturelle déedéet mais yëg taalibe yi di dem ci seeni tudd di dem ci seeni dëj ñuy ñëw di la ziar si ngay waxtaan ak ñoom ci sëñ tubaa di yokk seen pas-pas di leen gën a taxaw ba ñu gën a gëm sëñ Tuubaa ba mu jaral leen loo xam ne keneen wala leneen dootu leen ko jaral loolu de jàpp naa ne buñ doon def bilan fi mu toll nii dinañu xam ni manqué na fi lool te nag mi ngi def ay jeexit ak yàq goo xam ne buñ ci deful taxaw seetlu xeex ko bu ci kanamee dina jur loo xam ne ñëpp dinañ ci teg seen bët te bu boobaa du neex a saafara sëriñ bi li mu liggéey kenn mënu koo yàq lim fi bàyyi kenn mënu koo yàq waaye nag loolu yàlla ak yonent bi ñoo koy sàmmal moom mi nga xam ne ñoom la ko doon liggéeyal te ñu nangu ko ba denc ko fu loxo doomu aadama aggul waaye nag àddina la ñu ne te ay nit lañ te danoo war a organiser sunu bopp organiser sunu yoon ak doxin wi ba guur góorgóorlu ba jariñu ci liggéey boobu ba sëñ Tuubaa man caa dindi dara di ñu ko dimbalee ngir muy sunu yitte di sunu bëgg-bëgg di sunu pas-pas yii kàddu daal laa xam ni maa ngi koy maa ngi koy artoo ñi ma ko sañ a wax waaye maa ngi koy yóbbante ñi nga xam ne itam ab taalube don mooy wax ak ñoom te sañ leen a taxaw wax loo xam ne kat sukkandiku rek ca la sëñ Bay Jaxate daan defal sëñ Tubaa mooy li sëñ bi daa wax naa ko mbay dàgge ma kon maa ngi sant ak a gërëm ak a tuub lu dëng ci kàddu yi nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu